Serigne Cheikh Conté ñëpp ràññee ko ci réew mi muy le grand marabout la nga xam ni nag fajum cosaan yëfam la réew mi dañ ko cee ràññee xam ko ci muy faj nag di dimbali doomu aadama yi ci xam-xam bi ko yàlla seddee nga xam ni yàlla mooy maye yàlla daal di nag yëkkati xam-xam daal di koy may mu ciy dimbali doomu aadama yi lu baree baree baree bare ba réew mi yëpp xam ko feebar bu la jaaxal lu mu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg boo jëflanteeg moom feebar feebar bi ak lu ko mën a sabab dala koy dindil ba mu set wicc ci sa yaram xaar gi nag ay la muy gis nga ñëw toog mu wax la sa démb wax la sa tey wax la sa ëllëg jàppale la digal la ay sarax leeralal la sa yoon kenn du sëriñ Cheikh Konte dina la jox ay cangat yu baax dina la gunge dina la ubbil sa wërsëg dina la defal kaaraange taxawu la woo leen ko ma nga nekk HLM 1 ci numéro bii di 78 397 65 93 mbokk yi sëriñ Cheikh konte ngi noonu dimbali jaam yi dong la fi nekk masawu rek famille détenu politique yi. kilifa gi est doo ñëwee nii rek mu gën a yaatu. lii xew moom day wane ne. situation bu garaaw moo xewoon Sénégal. ndax ku doon naatable ne am na détenu politique wala amul détenu politique. Uh-huh. boo ñëwee fii di nga xam ne amoon na ay détenu politique. ndax lu mel ni ku ñëwoon den dem ba senegal toll fii kenn du ko mën a gëm. mais dañoo wax alhamdulilah. ndax liberté ku xam di nga xam ne lu sacré la ci nit uh-huh. kon nit ki bu buñ ko xañee liberté am ak njabootam doon jaaxle ndax fii ku fi ñëwoon weer ci ginnaaw. Uh-huh. dangay gis njaboot yi na ransaloo fii di indil seen famille añ ak reer kon tey ji mboolem naqar wuñ daan am buñ ne indil añ tey ji am nañ mbégte mu toll ak contentement mu toll noonu bi ñu gisee seen njaboot kon dañu wax alhamdulilah te ñaan yàlla lii mu continuer te lu mel ni it mu bañ a amati ci Sénégal ndax ñi dugg fii yëpp nit mu a génn kaso ak njabootam di génn fii di taaj foofu wala nga daal ndax en général la la fa daan dugal moo tax kon tey ji bu ñu génn fii di réew mi ñun doon na ko wax ndax semaine libération bi yàlla suturaaloon nañu fi ñu ci demul bëriwul mais fépp fu mës a dem dañ naan leen seen njaboot gi ñu tëj kaso na ngeen siggi am fierté ndax bu ñuy limaat histoire Sénégal fii 30 ans ci kanam wala 50 ans ci kanam alaa kulli aal di nga tudd ay ñoom Diop Taïf di nga tudd ay ñoom nit dof di nga tudd ñoom Sonko Senior di nga tudd ñoom Kassé te loolu yaafus mayu ko ko taxawaay moo leen ko may kon man ngeen a wax ne yéen bind ngeen sunu tur ci histoire Sénégal te bind nu rafet la nag kon dañuy ñaan yàlla détenu bu mag bi muy président Ousmane Sonko nga mooy symbole détenu fan yu néew mu génn mhm. retrouver liberté mhm. Sénégal ñu changé ko ci changement boo xamante ni lu mel nii dañ naan amoon na fi mais dootu fi amati mhm. asalaamaaleykum wa rahmatulah benn benn question ah, li may seere ci moom honorable dafa na li may li may seere ci oh, moom li may seere ci moom ñëw na ñëw na kër gum xam biñ ñu jàppee ñëw na fi ay yoon yoon seet suñu non la wax ñëw ay yoon yoon seet suñu biñ ñu jàppee loxo mës su jóg ci détenu rawatina jur détenu yi dëkk département de Mbacké soo xoolee waa Diourbel semaine de la libération fi ñu dem lépp même ña xam ni seen dañoo am ay doom si ginnaaw sax moom Cheikh Thioro moo def tout ba ngénte leen taxawaay taxawaay bu rafet kon projet bi am na ci solo lool kon tey su ñëwee rëbës ñëw na kër gu miin parce que mënoon naa ñëw fii ñu ne ko rëbës xamula mosu fay dikk kon tax bi ñu ngi lay nuyu ñu bàyyi la nga nuyoo ak ñi lay seetaan tur bi la. waaw asalaamaaleykum maa ngi nuyu di leen man c'est Mohamed Daf. Mohamed Daf waaw dëkk Grand F. laa bokk. d'accord Mohamed ñu bëggoon xam euh, kañ nga génn fi nga xamante ne rek mooy sama met ci jotu nii nga xam ne dañ leen jàppoon. maa ngi génn vendredi ay 18h50. nga génn 18h50 waaw 19h yooyu. d'accord def daanaka 5 mois 11 jours. cinq mois waaw 31 août lañ ma jàppoon. 31 août waaw. lan nga defoon bañ jàpp la. ben amaana man moom. daanaka du ma activiste sax mais je suis sonkiste pur et dur. bokk Pastef. Mhm. bu Grand Yoff mais je m'affichais pas trop même. parce que dañuy du ma militant du ma sympathisant romb naa yooyu je suis sonkiste pur et mhm. mais ben ay tuuma rek ñu ma tegoon ben jàpp ma mais sant yàlla bu ñu duggee kaso. ay tuuma ay ben acte est majeur à compromettre l'action mooy loolu daal sécurité publique tout ça. da nga daan dem ci manifestation yi. ben manifestation yi pacifiquement pacifique dama doon dem. Mhm. yi boo xoolee yu ñu xeex xanaa Adji Sarr bi bu 21 mars 2021 laa fa mujj mhm. ak bu ñuy lever barrière Sonko bi kese. waaw mais mosuma dugg si yooyu noonu. Mhm. mais daan nga sànni xeer. mosuma sànni xeer man je éducateur de foot je suis coach. coach amaana Baye waaw coach j'ai plus de quatre-vingt quelques jeunes en même temps je suis technicien en génie civil Baye mhm. vous savez li ma jàpp sama terrain ma fekk m amoon match teg samay mhm. balise pour booy bu ñu entraîné ñu fekk ma fa xama mhm. may jëli ay dossard yol vélo wàcc tali bi six point neuf bi xama gars yi intercepté ma waaw noonu lañ ma jàppee daal ah, dañ la xàmmee xaw ma mënu ma leen nu ma jàppee en tout cas mënu ma jàppee lu ñu ma jàppee bu ñu ma dama xawoon tiit parce que dama teelu ma gis auto police bi pour mhm. man ay nervi lañ mais ma gis auto police laaj ñu ne ma police centrale ma ne ok mhm. après ñu yóbbu ma ne ubbi sa kóol ma coopéré mhm. dem police centrale ben def fa jeudi soir vendredi samedi dimanche lundi férié parce que màggal Tuubaa bi la sa mardi ñu déféré ma xamoon naan damay sama avocat bu mu ñëwee ba wax ma ne ko non damay dañ may déféré waaw alors lan nga dund ci kaso bi loo xamante ne na la ben la cohésion la solidarité manifestant mhm. surtout ñu bokk si ñi nga xamante dañoo gëm idéologie Sonko bi mhm. waaw foofu maanaam tu manger à ta lekk bi moom macha allah manifestant yi seen biir kenn xiiful kenn magul mhm. waaw te dafa créer benn cohésion sociale familiale bu dëgër parce que même bu ñuy génn sax bu may génn sax man taxaw naa mënumaa génn bëgg naa génn bëgg ma génn lu tax lien lien de lien fraternel yi dañuy jug yuuxu woy woy woy woy woy gars yi ñu kontaan bu ngay génn ndeysaan mais tu es tu es ému xam parce que doo bëgg génn fa doo bëgg génn bàyyi fa moo dal ñu bëri. Mhm. parce que li nga fay dund la. xam boo dundee benn fan ak nit ñaari fan ngeen bokk lekk bokk naan bokku lépp. Mhm. kooku bu yàggee dangay ngay xam ay jikkoom. waaw man moom j'étais un peu chaud mais ba sant yàlla quoi. Mhm. waaw. Euh, ban chambre nga nekkoon ci biir 46. 46. ben bu may dugg kaso dugg chambre neuf laa commencé j'ai fait là-bas presque onze à ou jours mhm. heureusement que ben y avait benn garde bu m ma muté yóbbu ma 46 at moo yóbbee 46 ma nekk fa presque lu des yëpp mais en tout cas j'ai fait 164 jours de prison. alors li ñuy wax ci chambre neuf ndax am na ndax dañ naan moom moo gën a dangereux. waaw chambre neuf bu ñu dafa dangereux c'est parce que foofu xam nga y a tellement de monde façon bu ne moo fay nekk xam nga façon bu ne di nga gis façon bu ne. mënoo wax délit yi xam nga bëgg na crime yi bëgg na mhm. ku ne lañ fiy indi mhm. reykatu nit yeeg manifestant yeeg violeur ku ne am na mhm. loolu la ak tamit feesaayi kaso gi doo xam parce que ku nekk ak jikkoom nga am ay problème mooy neuf ak dix foofu la ñuy wax mais danger wu danger bu ñuy wax parce que tamit les gardes sont tout le temps à côté gardes yi malgré tout tout le temps à côté foofu boo fa xeexee dañ lay wulli am ñoo xamante ne sax xam nga mënoo ko di wax mais en tout cas administration pénitentiaire man de côté je les maa ngi sant di leen gërëm en même temps yàlla daf ñu dimbali. directeur bu bees bi fi nekk loolu foog ma wax ko. Mhm. wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla kat la. Mhm. waaw parce que am na yu bëri yu mu ñëw changé man bu may am 16 jours la ñëw bees mu ñëw ndox manqué mu indi fa ay mbànn yu bees dàmbaloo yi mu changé ko fexe ba lépp xam nga. lu ñu manqué woon jëm nañ te daan na recevoir nit ñu bëri ku am problème mu recevoir la. ba récemment lundi passé. Mhm. ticket yi dégg ngeen 1000 francs la woon mu def ko 500. waaw bu ñu amee directeur bu mel nii nañ ko sant gërëm ko ñu ngi koy sant di ko gërëm mhm. parce que moo apaisé situation bi même mutinerie keroog moo ko apaisé waaw man sama dama koto xaw ma turam xaw ma santam bilaay walaay mais je dis bravo ñu ko ne si cette lancée Sénégal loolu lañ soxla mhm. ay liggéeykat soxla ñu mhm. njaaj ak yooyu noonu il est temps nag xam nga dëkk bi changé ñëpp nekk si jàmm waaw te tamit dégg na lu ma gën a uh-huh. mutinerie bi daanaka benn c'était une frustration par rapport à ce que Macky avait dit Macky dafa ñëw ne day reporter élection yi am ñoo xam ne dañoo frustré xaw a yëngal yooyu mais heureusement tout est rentré dans l'ordre mhm. c'était un deux jours après nag benn ku nekk dafa doon jël ay sécurité ay sécurité am muy garde yi muy ñun ñu toog presque ay cinq six jours ñu loolu la woon mais tamit baaxoon na si climat social bi parce que kaso gi mënoo fi génn mhm. quoi quoi que tu fasses mënoo fi daw nekk waaw frustration mun na am mais da ngeen dal boo dalee yàlla may lu mu ngi nii ñu ngi génn ndànk-ndànk sant nañu yàlla ba liy am moo ngi am yàlla nag wëy jàmm waaw c'est bu ñu accueillir tu man yàlla dafa ma dimbali yàgg dama nekk ay xale yow nekk éducateur de foot en même temps yàlla dimbali na mu benn côté. côté psychologue damay xool nit xam ba ba ca gis naa ni foofu maanaam nit ñi bonuñu seen xëy na am na lu xew mais nit ñi bonuñu bilaay walaay doomu aadama bonul àdduna moo yéeme rek seetaane bëgg doole mais bonuñu da nga gis koo xamante ne day def lu ne wàng mais après da koy rëccu ay dël ay def yu gaaw mais da koy rëccu moo tax su ma yëgoon ñu war koo moytu te doomu aadama ku nekk war ngaa mën a dal si lépp looy def dalal ànd ak dal mhm. waaw xëy na tamit boo xoolee benn côté li ñu amoon ñun ñii ñëpp li ñu ko ñu defoon ñëpp baal nañ ko am ñoo xam ne dañu leen dóor ci yenn kaso yeeg tout ça mais ñun baal nañ ñëpp bilaay walaay mm-hmm. c'est pas j'ai de torture que am na loo xamante ne ben je vais pas dire torture torture morale yooyu noonu xam nga duñ kii mais quoi qu'il en soit am na ñu jot a dóor bu ñu leen jàppee si manifestation yi ñu fekk si manifestation am na ñu jot a dóor mais ñoom ñëpp baal nañ ñëpp. Mhm. billaay walaay. alors de retour tey sa xamante ne yaa nekkoon seen coach. mais xale yi man na sant yàlla mbégte démb rek dañ ma ñëw sargal ben j'étais ému. damaa mujj jooy tey dañ fekk ñu xale yi lépp sama biir terrain ben am na koo xamante xam ne dara mu ngi fi taxaw ci yéen seen mhm. seen collègue la. Mhm. ben man ça fait 30 maa ngi 30 ans maa ngi dëkk si benn koñ. 13 ans 11 ans maa ngi si coaching. waaw footballeur waaw football moom ñëpp a fi si xam parce que ci laa xamee ñëpp. amaana tamit kon foog ma delloo xale yi seen. liñ ma liñ ma kii activité yi. activité yi je vais les reprendre de part côté yëpp. waaw même sama côté liggéey je suis entrepreneur en génie civil ben contre mhm. exercer tamit lu ma doon def. doo delluwaat si question bi parce que dégguma bu baax waaw. ba gisuma ko ah banditisme boobu ngay wax gisuma ko xëy na yenn chambre la la nekkuma fa woon maa ngi woon chambre 46 foofu jaamu yàlla fa nekk chaque lundi dañuy wàccee kaamin neuf xaw ma neuf amoon na banditisme bu amee banditisme tamit si yenn booy la par rapport à ce qu'ils ce qu'ils vécu parce que am ñoo xamante ne franchement ils vivent pas avec leurs parents mhm. boo dundoo sa papa ak sa yaay nga génn dugg ñoom ñoo fii xëy si fii seen kër la mhm. ñoom nekk fii moo gën a nekk mi yenn booy yi mënu si ñaax ay tête brûlée mhm. loolu daal laa xam mais banditisme bu ñuy wax man gisuma ko waaw gisuma ko ci biir waaw te tamit fii dañuy da ngay defaru fii mënoo fi yàqu boo fi yàqoo yoo la neex fii boo fi duggee normalement da nga war a gën a defaru boo boo impatient da ngay gën a dal waaw waaw léegi man mi di wax yow man tuxkat laa damay tux cigarette mais sama dama naf laa topp kese loolu kese la du leneen yaay defal sa bopp yaay kii sa bopp mhm. wala boobu ngay def lu bon da nga koy ah. kenn du la si dimbali man tuxkat laa man bu may gis dama doon mooy ci biir damay tux waaw kese mais quoi qu'il en soit administration pénitentiaire bi dañu jël ay mesures adéquates am règlement et intérieur si biir chambre yi sax boo dóorantee dañ lay punir moo tax yu si bëri amul woon ay saag ak lépp waaw am na nag ñoo xamante ne waaw seen liggéey la ñuy def am ñoo xamante ne nag romb nañ seen liggéey waaw mooy côté yëpp nag ci garde tout mais li si mën am mooy en tout cas climat social bi nekk si biir kaso gi wax dëgg yàlla bu leen ko jàpp man ku dul kaso moo xamul mais climat social bi fa nekk wax dëgg yàlla man romb na li ma foogoon dama jàppoon ni xam nga day am affaire de gangstérisme fekk ñu si. macha wax dëgg yàlla man mii di wax ak man mi di wax ak yow je suis man dama tàng jër am na nooy waxee sax dama lay ñaanal ci néegi tëddaay bi sa dafa metti des fois ma ñaanal gars yi chef saa bi dama hé eh, bàyyi saaga bi man dama doon dal mhm. parce que da wax ma ñaanal <laughs> waaw